dafay am tolluwaay man ci enquête xam naa ni nit ñi voté luñ ñu pa parce que dañ ñu contre mais parce que ñu ci bari jàppaloon nañ ne seen vote dafa am problème bu ñu bëggoon régler te du aar Sénégal moo ko mënoon régle donc awuma ci dara loo xam ne moom laa ciy regretté et je ne suis en train de rectifier. koy waxtaan naa ak ñoom des heures et des heures et des heures donc du loo xam ne daf ma rëcc wala ma def non c'était mon choix à l'époque bañ ci bokk benn boo xam ne mën naa leen ko ci wax mooy yeewu askan bi bañ koy mettre en place parce que loolu aussi travail de journaliste la awale existé gu instant boobu aw ma parti aw ma mouvement man lañu doon woo Abdourahmane Diouf intuiti personné pour waxtaan ak man ñu am ci yu ñu d'accord am ci yu ñu d'accordul mais kenn dégguma ci parce que waxtaan la woon rek jubawuñu ñu bari nag bu ma demee Tëngéej dañ may tooñ naan boo bokkoon Yewwi Askan bi peut-être que yow yaay doon député maire mais man loolu du sama motivation ba may dugg askan bi c'était pas que damay dugg parce que dama bëgg doon député parce que dama bëgg doon maire du loolu mooy finalité bi finalité bi mooy toujours bokk ci projet politique pour amal njariñ sama réew nee naa la bokk naa benn partie boo xam ne def naa fa deux élections présidentielles muy réew ak deux élections député kenn gisul sama tur samay militant dañu doon wax sax naan lii mooy ban genre façon politique bëggoo dara nekkoo ci dara xëccoowoo dara politique dafay xëccoo donc moi je fais pas la politique pour des strapontins maanaam bu ma defee lii am lii bu ma tegee schéma et cetera homme politique bu nekk nag da nga bëgg ñu fal la bëgg naa ñu fal ma mais jaaralu ma yenn yi je le fais avec mes valeurs donc je suis pas en train de rectifier yoonu politique moo taxaw tey ñu ñëw ànd ak Pastef ànd ak Diomaye président ànd ak président Bassirou Diomaye fay on l'assume te képp koo xam ne mën nga observer di nga xam ne bari nañ ci xalaat loo xam ne ñun ñoo ko bokk donc je ne rectifie rien je continue ma trajectoire tey dugg naa ci Bassirou Diomaye Faye est-ce que daf ñu wóor ne moom mooy gagné wóorul mais nag je travaillerai pour kil gagne man dama mën a alerter des fois alerter yi daf may sax xaw a porter préjudice taxaw naa fii Diomaye mi may jàppale ma ne le candidat Bassirou Diomaye Faye est en danger ba ma koy wax lu rafet rek laa ci jublu woon mais ñu jël wax ji tourné ko mais parce que loolu yëg naa la ma yëg xam naa la ma xam xamoon naa instant boobu recours yi ñuy def ci candidat Bassirou Diomaye fay xamoon naa ko pexe yi moo yeggul mais le candidat Bassirou Diomaye fay était en danger tey nag je me que danger boobu fexe nañ ba teggi ko ba Diomaye nekk candidat ba Abdourahmane Diouf ñëw man ko jàppale tey le seul grand danger de Bassirou Diomaye Faye c'est de nous mettre dans le risque d'être notre prochain président. Et je travaillerai pour qu'il soit notre président de la République, Inch'Allah. Alors, Ousmane, incertitude ci élection yi euh, fii li ñuy wax ci kaw ak li ñuy wax ci suuf rek moo fi am yéen li ngeen di dégg <laughs> comme journaliste moom laay dégg moo tax boo leen gisee domaine boobu argumenté ci dama ñaan dama ñaan ne yàlla na yàlla féexal xol na yàlla fëgg bopp yi ba crise inédite bi ñu dund ci l'histoire politique du senegal yàlla dimbali ñu ñu nekk ci muy di ci génne yàlla na bu ci saytaani dugg loolu moom dama koy ñaan argumenté wu ma ci parce que yi may dégg yëpp bu sottee mooy ne élection du am mooy ne président Macky Sall dina fi jóge jóge boo xam ne rafetul te loolu baaxul ci Sénégal li ñu dund yéen ñëpp xam ngeen ko le pays était au di guuf ñun nag Sénégal dañu bëgg stratégie du bord du gouffre waaye yàlla may nañu saa yu ñu xeexee gi dinañ taxawaat réfléchiraat delloowaat suñu xel xam ne nous sommes un peuple intelligent nous sommes un peuple de génie et que nous sommes capables de trouver des moyens d'autorégulation qui nous permettent d'échapper à certaines crises waaye yàlla bu guuta googu mais bu ko yàqaat constitutionnel ñi ñaa ngi leen di kañ ñi ñu ngi leen di tagg ñi sont fiers mais li ñu def yëpp du droit li ñu def yëpp du droit sama posture du juriste bu mujjee bii nga xam ne ñëpp a ngi koy kañ mën naa la wax insuffisance yi ci nekk waaye dëkk bi dafa am foo xam ne bu fa tolloo affaire bi c'est pas une question de droit point nit ñi dañuy fàtte ne le droit c'est une science sociale c'est une science sociale maanaam droit dafay xool ni ñuy doxalee société bi léegi boo demee ba appliquer les règles de droit war la yóbbu ci guuta mais il faut être bête excusez-moi le terme pour dem ci guuta googu juste parce que da nga bëgg a respecter les règles de droit ça ne se passe comme ça élection bii nii tey délai délai délai campagne bi matul dina bari ay insuffisance mais on l'a fait dans le cadre d'un consensus pour sauver le Sénégal man sauver Sénégal boobu moom intéressé wax naa leen ne bañ ma tëyee parrainage Sénégal yëpp xam nañ ne man niñ ma téyee c'est injuste mais est-ce que dama fi waroon toog continuer naan non élection du am continuer jàpp ci dénigrer conseil constitutionnel. conseil ba tey kañuma leen parce que gis naa les insuffisances yi ci am bi sage jotee pour ñu soovee le pays ils l'ont fait mais après je vais pas aller chercher des petits arguments juridiques pour wax naan non communiqué bi pourquoi set ñi signé wu ñu ko kenn moo ko signé. On est dans une logique de, de, de trouver une solution. Allons dans la logique de trouver une solution. Alors, Lamine, sur l'incertitude sur le ministère de l'Intérieur. Ah, man day damay dem ak esprit positif. Je sais pas si sama mbokk opposition yi nañ d'accord ak moom mais li ma gis ak li ma xam ci Makhtar Cissé bi ñu fi teg am naa ci yaakaar am naa ci yaakaar yàlla na bu sama yaakaar tas c'est juste une présomption mais am naa ci moom présomption de compétence am naa ci moom présomption de bonne foi te administration Sénégal nag ci fan yu mujj yi gis ngeen juge yi décision yi ñu doon jël ci affaire Ousmane Sonko gis ngeen conseil constitutionnel décision yu courageuse yi mu jël man dama gëm ni le président Macky Sall c'est le dernier président ip Sénégal mës am parce que léegi dañuy dugg ci beneen ère boo xam ni les fonctionnaires et l'administration vont prendre leurs responsabilités. Macky mësul xalaat ne waa conseil constitutionnel di jàkkaarloog moom xeex ak moom ji dañ ko jël Makhtar Cissé kilifa la fu nekk jaar na fa ci Sénégal deux mois la nar a nekk est ku tey ni Makhtar Cissé dina la jaral ci deux mois nga dugg ci ay tripa fay yàq carrière bi nga def yëpp crois pas donc Makhtar tam maa yaakaar googu nit ñi am ci moom yàlla na bu yaakaar bi tas incertitude yi bon wax nañ ci saa yëg te du sax secret yëg rek laa yëg mais li ma yéegeen yëg ma yëg ko tiital na ma man dama bëgg mu jeex sànq gis nga yaa deux ans bi gouvernement bi def see projections économique Amadou Ba ñëw nekk premier ministre un an et ci laa leen wax ne